yéy am na lu fi xew man danaa ko wax. Eh, Seexu Taaboy si koor gi. Seexu Taaboy si koor gi Seexu Taaboy. Ah. tey jii de. lii de bu ma dogoo yàlla ci jàpp soo ba tey maa ngi dox di bëgg a dee kii damay séenu borom taabal bi am na ni xaar xaar xaar xaar rek. ay laay li la Fatal ak Kalla macha allah sama xaalis xëy na yow kenn du yor suñu réew ah waay waay nga ne bu ma la gisee dana ndogu. yow yow jëloo sa kanam rek def ko yu tëri jam ñaa ñobi paxet paxet ah non kenn réew Guère Mbaye je suis un lion je suis un gardien mais je suis un ponkal tey nag damaa xëy seet samay géer waaye daal ku ma dem sa kër ñu ne ma da nga ma jàppoon ne du dox waaye ma tasee yow laa xam ne tey fa mu neex fa tabarkalla macha allah yàlla nga mucc di si ñun mucc ci wu rek yàlla nga mucc ni asamaan muccee ci max ma ne eh yàlla nga mucc ni mu yow mbaam ko muccee ci ah cere itam xarit waay kenn du yow ci mim réew. gereel ni soo woyal sa kanam gii di mel ni sama diggu xur yi li yàlla waaye xam nga amay woyal xam laa la wax ma ne tus yow da nga moom nit ñi yow ayo kër bu lay woyal doo ko damaa muuma ma ne maa waroon ne damaa mu ne la eh eh eh eh eh taxaw taxaw toog waaye yow bi ngay àtte rek ñu. yow yow loo loo jotee kii. waay fii laa ko romb dem di wax ak moom. ah defal nii defal nii yow gisoo defal nii ah. yow da ngaa da ngaa dóor gi da nga kaa dóor. dóoru ma ko. fii laa fee laa toll man géwél laa damay wër de way di wër de wayam. waaw tey damaa xëy amul ma ndoxoo ma dem seeti samay giir yàlla dugalut affaire bi kii mu échappé ma romb ko fii di wax ak moom moomay saak. kii war na maa saag. yow yow kii kii kii daa mën a fen yow yow kii daa kii mënu wax tooga tooga yow la moo tax nga ngay dóor suñu suñu suñu suñu mag la moo tax nga ngay dóor. dama kaa dóor dóor la moo tax nga dóor ba pare nga ñëw bëgg sàcc tàndarma kii daa bëgg sàcc tàndarma kii daa bëgg sàcc. paa bi paa bi mu mel ni mu mel ni naat bi kii xoo ko. temps bi Pape ñaata ngay dala. diw waaw waaw waaw noppi waaw noppi noppi dama waaw noppi diw fi atia. Pape dafa ñàkk fay de. waaw noppi déedéet soo lëggee soo soo. noppi waaw noppi. soo lëggee soo ñëwee dañu lay rey. Pape bi daa fumiste Pape bi daa fumiste. noppi noppi Pape bi dafa fumiste. taw taw waaw noppi. xaaral ma lay faxase sax. c'est c'est fëgg ko. dama lay faxase kese. kii sam sa sa sam rakk la. ah ju ju ju dem kër ga ñu jaayal ñu jaayal dama. dama nga noppal dama woo ñu jaayal. dama noppal. dama dañ lay jaayal. dama dama. kaay toog kaay dama dama dama dama si kër gi noppal dama dama dama dama. yow mën nga doog dégg nga dégg nga naanal ndox dégg nga. dama. mbaa kii kii xaw nañ kaa rey kii. daa mun a tooñ leneen ma daa sàcc waxaat leneen ma daa sàcc waxaat da kaa tontu. da kaa dóor si taat la ko dóor si taat. généraux. ja ja jaay sama ma jaay sama bopp tey wañaan wañaan dañ kaa dóor daa sonn nañ jaay suñu suñu yëf suñu bàyyi yow da ngay sàcc rek yow. tàndarma tàndarma fukki dërëm cent franc ñaar fukki. fukki dërëm. yéy am na lu fi xew man danaa eh, ko wax. seexu temps booy ci gi. Gueule Mbaye. waxal ak man lu xew. wallaay naa la naqari da ngay wax la. naa la de dëkk bépp xam nañ ne maay seen géwél ñëpp fu mu dugg. loolu ñu defal ma teranga waaw dëgg la. ma ma ma ma romb waa ji jaay fii tàndarma xaw ma nu mu tudd. muuma wañaan. daa muum. yow wañaan muuma yi mu yàggee ci koñ bi xamoo ko. moom nag romb. waaw. xam nga man géwél mbaay laa. waaw fu ma romb rek lu mu néew néew ma séntu fa teranga ma dem di ko taggali di ko waxali baax baaxam di ko taggali maamam di ko waxali baax baaxam lii nag waxoon naa la ko mais ñaari gone ya da nga may déglu da ngay ràññi ji tollu tut ci géwél judd géwél ah, géwél loolu laa xamatul la ma gën a naqari mooy ñaari gone yooyu xaw ma parce que soo la tuddun ah, ñaari xale yi booyaa ma fa romb ay jarbaatam lan la seexu ak sëñ wa waaw ma dañ ko jàppale ca njaay ma damaa yaakaaroon nag dañuy annoncé nekk te booy dañuy sot booy dañ maa eh. wullee wulli ba ma mel ni tege-tege. duñ la dundur. waaw waaye bu ma la waroon sama digg ginnaaw gi xur gi. benn booy bi eh, tàpp na ma tàpp boo eh, xam ne géwal mbay. la. du ma ko ko baal ba yamal xiyam. géwal mbay ma lu ba ma ba may bëgg a dee waaye xëy xaw nañ maa rek. seexu ak suñu bàkki. moom waaye yow Ablaye nag yow nit koo xam ne xaw nañ ko rek doo ko xam. waaye xam nga li ma bëgg mooy. ah waay ma maa fay jaar léegi lijjanti ko incha allah rabbi lii dootu am. Ablaye ka allah kulli xaal ñoom nag réew nañ bépp réew waaye noon lañ ma joxe cër te itam noonu lañ ma respecté li ma bëgg mooy demal man danaa ko lijjanti waage na nga laaj ku tàpp yokku ne ko yokku ne day fayu ki nii bàcc na adduna ba yowal kam tàpp moom daa koy fayu joon bay ma ko def wutal ay géer nag koo romb wayan li naan lii dana la dalal demal xew man danaa ko wax. Seexu Taaboy ci koor gi. Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. Seexu Taaboy ci koor gi Seexu. tàndarma tàndarma. ewa ewa tàndarma ewa ewa tàndarma tàndarma. yow yow ewa tàndarma. Pape dañu kaa ah. du du du du duy saf. duy saf lañu ko dama dama kaa bàyyi ba mu tëgg ma tàpp ko tàpp. ah yaa ko tàpp maa ko xandal ba mu xiir ma tàpp ko tàpp. te kaa waroon tàpp si tànn. Pape dafa réew. ay wa tàndarma kii day jënd am 100 francs lay jar teel ma so eh, ma maa ko njëkk a jaay tànn suñ mbàkke yii lan moo tax ngeen réew luñ def luñ def seexu lan laa la waxoon seexu ñi da ngay respecté mag rawatina xale géwél mbaay mi ngi doon jàpp di ko dóor nag fii lay dajeeg moom lan laa leen waxoon seen papa leen yóbbu daara man maa tax ba yóbbu leen daara ndax ni ngeen jàppale seen jarbaat bi wañaan moom ana wañaan suñu nijaay nga nga nga naan suñu jarbaat la kii kii daa yëpp wañaan ana wañaan jaar na nii jaar na nii day day naa ko fekk seexu kii la leen def ngeen koy dóor kaw mu fekk xoola wañaan toog mu mu daa koy saaga na est-ce que waa kay noonu la ko mu ne ko wañaan damay ñëpp saaga bu ñaaw ba si kaw sama eh, wañaan bu ko saaga yéen ñii ndaw yéen a war a ñëw xool ngeen xam ne xale day respecté mag moo ko tooñ paa bi moo ko tooñ paa boobu dafa seytaane eh, mag du tooñ gone mag du ko tooñ bu la mag tooñoon ba nga jàpp ni moo tooñ itam bu ko jàppee tooñ jaamu ci yàlla xale di respecté mag tey 100 francs yéen laa ko bëggoon a jox waaye ab ko jox. i ndax da ko amoo leen yar. waaw ko defar ba kitaabu téere maam yaa du ma ko defar bu ngeen waatee fukki waat juróom du tax ma jox leen dara yaa ngeen maa waatal. ñun dañoo samay xare ngeen waaye tey moom mere naa lool di bu leen ko defati boo liggéey. dégg nga li may wax gis nga moo gaañ sama rakk bi fii ci loxo moo paa bi moo ko gaañ fii. dégg leen li may wax daal may cent franc kii kii nii rek la def koñ bi day wër ku nekk mu am lu mu la wax ku nekk grand bi grand bi seytaane la ku nekk mu am lu mu la wax day dem si nit ñi di leen wax yàlla yàlla nee na xoo xoobu lan doxaan kese lay def ci koñ bi day doxaan xale yi jigéen ñi rek nu mu ciy caga la aywa tàndarma fukki dërëm. cent tàndarma tàndarma aywa ma deux cent. yow kii wax na dëgg xa xale warul dóor mag xale warul dóor mag te boo wooree da ngaa war a da ngaa war a maandu waroo tooñ ba pare da ngaa war a jaamu yàlla ñun ñu dem dóor kii te kooku daa tuuti daa ndaw. waaye waaye waaye yow yow yow jaamoo yàlla yow yow yow boo wooree doo julli yow doo julli. waaw xam julli julli woo démb démb woor nga ba mu jeex julli woo te boo wooree yow doo julli. xam nañ leen julli ñu dem ñu julli. ñu dem julli gaaw dañuy gaaw dañuy gaaw julli gaaw lu fi xew man danaa ko wax. Eh, Seexu Taaboy ci koor gi. Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy.